un euh, problème de distribution ci Thiès un problème de marché Thiès depuis longtemps euh, président de la République euh, son excellence M. Macky Sall demandait nous réaliser un marché moderne à Thiès marché central au poisson nous avons liggéey bi agence nationale des affaires maritimes comme agence d'exécution nous monter un dossier technique avec un bureau un bureau d'études un architecte nous monter un dossier d'appel d'offres d'avis euh, d'appel d'offres euh, euh, par voie de, presse on a finalisé toute la procédure à ce niveau Les entreprises entreprises soumissionnaires ont, des visites de site pour identifier l'emplacement du site qui va abriter le grand marché central aux poissons de Thiès lolou lañ ñëw and ak entreprise ji ko def yalla def na sutura ñu am entreprise yu bari yu jënd dossier bi ñëw nañ visiter ko dinañ leen expliquer détails yu ñu bëgg xam euh, pour euh, inshallah, le 12 novembre ñu mën a euh, clôturer procédure boobu def ouverture des prix et def le travail de sélection de l'entreprise qui aura la charge des travaux de construction du marché central au poisson de Thiès. ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi lay fay. bëggoon euh, xam lan waaw xanaa tàmbali sant yàlla. waaye gërëm président de la république ngir euh, lii naal bu yàgg la. mareyeur yi ci boppam nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu jën ñoo ko njëkkoon bëgg. Euh, waaye Thiès yëpp soxla ko. waaye au delà de Thiès lu wër Thiès yëpp tamit soxla ko. tey ji nag jëfe bi suñu borom mi ngi ko jaarale ci ministère la pêche. ak euh, anam bi nga xamante ni DGH mi doon wax léegi moo ko jiitee te ñoom ñu am ci taxawaay bu rafet ndax bañ leen denkee dossier bi ak léegi bi leen ko président dénkee ak léegi euh, vraiment accéléré nañ ko te loolu lu mu bëgg rafetlu la boobaak léegi nag euh, ñu koy waxtaanee fii ci biir dëkk bi li ñu waroon mooy fexe ba ñu am barab barab am na amoon na sax waaye moo am yu ci xew waaye ñu yàlla indi nañu beneen barab boo xam ne dafa mel ne sax moo gën kon léegi desul lu dul liggéey bi mu am wàll woo xam ne nag moom wax na la ko léegi ba pare jaratul jaar loolu c'est technique et puis ay procédure la yoo xam ne bu buñ ci jaaree incha allah li ci des mooy liggéey euh, ñu bëgg rek population cees mais rawatina ñi nga xam ñoo yëngatu ci wàllu euh, jën ñu dalal seen xel ànd ceeg dal ndax yaakaar naa ne bu fekkee président jóg na déglu suñu euh, joytu ba yëkkati lu bëri Euh, jaarale ko ci anam jaarale ko ci ministère de la pêche ak yooyu dénk leen liggéey bi mooy kon mën nañoo am yaakaar ne balaa yàgg benn ci ñi nga xam ne ñoo doon ñëw di saytu terrain bi ñëw dina téye projet bi liggéey ko ba nit ñi mën koo jariñoo leneen lañ ca bëgg a yokk nag te xëy na euh, leeraluñ ko ci biir projet buñ demee ba ca biir fañ ko war a waxtaanee ñañ ko war a waxtaan dañ ko waxtaan ba mu yaatu ba yeneen yi ci commerçant yi di bëgg ñu mën ko caa ñàmbaas ci biir mais pour le moment comme dafa am cahier de charge boo xam ne ñoom joxe nañ ko ñoom la ne ca cahier de charge bi rek ci la entreprise yi di engagé wu mais comme ñun bi ñuy wut terrain bi it jël nañu lu ëpp li gaañe soxla ngir bu amee leneen luñ ca war a yokk ñu mën ko caa yokk loola su fekkee ne ñoom am nañu kàttanu def ko alhamdulilah su fekkee ne ñoom moyens ñu dajalee àggul foofu ñun ñu seet suñu moyen bopp la yeneen pexe

Nous xam nañ ne nous, liggéeyandoo ñun ñëpp nag ñëpp hum. vraiment le premier ministre euh, le 5 mai 2018 nous présenté un plan de développement de la ville. Hum. plan de développement de la ville boobu defoon nañ marché central aux poissons fruits et légumes ñëpp xam nañ euh, euh, conseil de ville. Hum. adopté à l'unanimité le 21 janvier 2016 une délibération pour jagleel benn terrain marché aux poissons donc xam nga kon ñëpp xam nañ ni avons ville de Thiès au delà du maire. une fois que soxla dara ba dem plan de développement da ngay besoin moyen bu ko def léegi nag état bi cadre du premier ministre le président ko engagé ne ak engagé wu nañu def ko. lampadaire yi yi muy lu jëm ci euh, e, e, e, extension réseau euh, kii nu mu tëdd électricité bi nga xamné au delà de l'éclairage public donc yooyu yëpp lii ci la bok maintenant xam nga bañ ko bëggé yag na mais nit buy def dara hein ah, bo lekkee alam dañ ne na ko gërëme coy tay ñom ñi la ñom ñi ñoo nek vraiment te te vraiment bi fi nekkee accéléré nañ ko té ñi ngi gis ay résultats yalla nako yalla agalé àggaleeg jàmm mu jariñ ñep nak vraiment voilà waaw mu jariñ ñep xam naa ne sama maam bi yar nekkoon jaww jën mu santé di ngoss Njaay bis bu marché bi kii mu fekke ko ah xam naa ne loolu dina ko neex lool yàlla na yàlla na ko fekkee jàmm. waaw Habib Habib Diène président union communale de Maria de Thiès xam naa di wax rek euh, ni ko kilifa yëpp waxee rek daanaka doy na sëkk quoi xam naa lii moom tey bu ko waa Thiessois yi gisee wax dëgg yàlla dañu ci kontaan lool ndax wax dëgg yàlla doon nañ xaar bu yàgg ba léegi. xëy yu jot a jaar sax dootuñ dellusiwaat comme ni ko maire waxee ni ko directeur anam waxee ni ko kilifa yëpp waxee tey bu ñu woowee population bi ci lii woo kilifa yi ci lii dañu xam ni jot na Thiès lii mu am ko wax dëgg yàlla di ci gërëm nag président Macky Sall di ci gërëm suñu ministre de tel Aline Ndoye di ci gërëm la maire Talla Sylla ak ñi nga xam ne ñooñu ko àndal ñëpp euh, ba ci kilifa yi nga xamante ni la madame la maire mi ngi ni taxaw bokk mareyeur aussi nekk koo xamante ni ku jàmbaar la suñu grand frère Moussa Diop Yékini mi ngi ni taxaw aussi tamit nekk la mareyeur nekk responsable aussi mais ak mareyeur yi nga xam ne ñu ngi ko àndal ñëpp tey ñu ngi ciy fàttaliku bu ñu taxawee fii ci sud bi tey suñu xel day dem ci Abdou Diaw ndax li lu ko bëggoon la ku ju daan sonn la ku daan def yu yitteem la ku daan xalaat la tey vraiment boo taxawee fii tey ñu ngi président ñu ngi ñu ngi euh, gërëm tamit Thierno Ciss moom daan na li may wax sedd la ci daan na ci dox lu bari ànd ko ak moom kon bu yàlla weddee tey ñun ñu taxaw fi jël relève am yaa ngi dégg moom mu nekk ca barzak du ñuy ñaan fu mu nekk yàlla sutural ko fa yàlla dul xéewalam yàlla dul sutural ndax ko yàggu na euh, xalaat wala ku yàggu na mëbëb kees am marché mu fekk ko mais tey lii moo neex yàlla luy wax ni rek. Euh, amatuñu yàlla na àgg ak jàmm ñu proposé mu tudd marché Abdou Diaw. jërëjëf incha allah jërëjëf loolu daal mooy li nga xamante ni vraiment kontaan nañ ci non taxawaay bi mu ci am moom macha allah moom li mu wax ni mooy Baye Fallou kees ñëpp d' accord lañ ko ndax wax dëgg yàlla guddi ak bëccëg. suba ak ngoon heure bu ñu ko woowee ci lii wax dëgg yàlla dañ ci taxaw am ci taxawaay boo xamante ni day sut sa njot sax ni wax dëgg yàlla lii woo koy wane tey waaw barki démb rek la wax nit ñi bëgg nañu am nañ yaakaar ni dañ fi daje mais wóorugul woon tey bi ñu xëy mu confirmé ko dañoo woo mariéri quelques mariéri ñëw teew ci est-ce que yaa ni daal wax dëgg yàlla mariéri kontaan nañ ci lii te yàkkamti nañ ko nag mais ñu ngi ñaan ya ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ci woon Sénégal yëpp ñu ngi ci kontaan kontaan boo xoolee ni may wax rek xam ne wax dëgg yàlla dañoo yàkkamti lii incha allah mais yàlla na ko yàlla sutura jërëjëf macha